professeur si yow laa jëm professeur professeur dafa am benn disposition ci constitution bi mooy article 55 dafa wax ne euh, maanaam euh, bu ñu falee gouvernement premier ministre normalement war na dem fële ci assemblée nationale def li nga xamante mooy déclaration de politique générale est-ce que jàpp ni Ousmane Sonko war na mën def parce que boo xoolee constitution bi moo maanaam bépp loi moo ko féete kaw yow en tant que juriste ban commentaire nga ci amal ci on devrait pas avoir ce genre de débat même fu Sénégalais yi tollu xam nga ñun dañuy avancer à reculons parce que malheureusement dafa am ñenn yoo xam ni su jotee ci réew poser un débat euh, da ngay poser sax des des da ngay poser wu des question si parfois est-ce que mën nañoo ràññale le principal de l'accessoire li nga xam ne moo ëppal solo Sénégalais yi li nga xam ne carrément carrément seen vécu quotidien mhm. seen problème quotidien li nga xam ne si la ñu a jublu ñoom euh, pour xool boo doon def micro trottoir laaj Sénégalais yi lan mooy seen problème dinañ la wax li ñu jànkontee seen i santé dinañ la wax éducation bi nga xam ni dafa xaw a doy waar surtout que fële ma nekk depuis huit mois yu mu tëjoon. Mm-hmm. depuis dinañ la wax ni tey nit ñu jógee màkka ñu ne la attention Covid bi dafa xaw a ñëwaat est-ce que dëgg la wu dëgg quelles sont les mesures dinañ la wax yu bëri doon loo xam ne tey wala na mën a nekk des politiques publiques euh, dans les différents secteurs yu ñu waroon a def loolu mais indiwaat nañ débat bi mu nekk débat boo xam ne extrêmement important. suñ ko dekkoon dans le cadre institutionnel mais malheureusement dañ ko bëgg a politiser et politiser boobu nag mooy yàq l'objectivité bi nga xam ne moom lañ ko bëgg politiser non de tout bord de tout bord pour être honnête parce que le problème est que est-ce que dañu war a défendre le président Ousmane Sonko parce que dama bokk foofu wala est-ce que dañu war a défendre côté Benno parce que dama bokk foofu suñu ko defee ku si nekk bu waxee rek dafay am gain de cause et day am légitimité hmm. pour wax fa mu bokkee maintenant le truc est que suñu defee la la l'aspect pyramidal la constitution est au-dessus li nga wax dafa nekk dëgg l'article 55 est très clair wax dëgg fa yàlla amul ambiguïté amul zone d'ombre amul lenn loo xam ne dañ naan nan lañ ko war a interpréter comme nous savons le faire daf ne après sa nomination le premier ministre fait sa déclaration de politique générale ce qui a une valeur constitutionnelle mm -hmm. encadrement juridique bu clair duggul nag ci modalité yi parce que tey dama ko doon waxtaanee par parallélisme de l'article 27 bi ñu posé woon mm-hmm, mm-hmm. xam ne moom dafa clair par rapport ci détail dafa ñëw rek poser le principe en tant que tel sans poser la les contours et les modalités mises en œuvre bi parce que y a une loi organique bi nga xam ne moo ko war a organiser loi organique boobu nag mooy loi organique bu assemblée nationale ñu taxaw si gis nga baabu dans une république normale loi yi ce ne sont pas de simples écrits c'est de la société suñu ko respecté wul dañuy nësaxal dëkk bi mm, mm, mm. toute loi boo xam ni dafay organiser un cheminement un comportement fonctionnement ba ci fii ñi mu nekk da am heure bu ñu la jox. Mm. am waxtu boo ko war a def mais c'est organisé. Mm-hmm. nekkul da ngay toog rek nga ne na heure bi laa am envie def ko wala suba 19h wala suba. Mm-hmm. donc bu fekkee ne assemblée nationale dafa am une loi organique boo xam ni dafa légiférer wu ba pare régler tout ce qui est déroulement de l'assemblée national donc toutes les dispositions devraient être des dispositions normales claires être en vigueur et que su amee vide ñu corriger carence bi. Mm-hmm. et malheureusement débat bi comme nu ko grand Wade waxee moo tax bax nit ñi sax nekkee ndekete kon bi ñu dingee poste premier ministre dañu dindiwaale tout ce qui est prérogative yu mu àndal au sein de l' assemblée nationale waa par parallélisme des formes suñu indee premier ministre mais l' assemblée nationale a un rôle mm -hmm. il y a la commission des lois mm -hmm. président de l' assemblée nationale il y a donc c' une défaillance extrêmement grave de l' assemblée y compris son président y compris ñi gérer commission des lois parce que waroon nañoo xam ni attention y a un vide juridique mhm. et on va vers des élections présidentielles et il y forcément un premier ministre mhm. maintenant ali bi bi nga xam ni euh, dafay nekk loo xam ni ça tenir mooy le premier ministre su duggoon assemblée nationale est-ce que tu sais que le droit en réalité au-delà d'être des principes le droit est dans des subtilités dafa fin mais nit mun na dugal ne kon vous avez violé l'enceinte de l'Assemblée nationale parce que y a disposition bu la permettre nga teg fi sa tànk mm-hmm. bu ñu oree loi organique bi tout ce qui veut dire que donc la correction était devenue nécessaire maintenant qu'en est-il de Ousmane Sonko dafa war a ñëw assemblée def déclaration de politique générale mais loolu c'est même pas un débat c'est une obligation parce que constitution moo ko wax et au-delà même bu nekk obligation c'est une tradition républicaine mm-hmm. c'est une pratique législative donc moom mënu si dérober wu est-ce que moom taxaw na ne du ma ñëw waaw tout à l'heure wax na ko nee na da may waaw wax na ko léegi corrigé wul fi ak le 15 na ko nangu parce que dafa bëgg peut-être son action puisse être accompagnée d'un cadre légal bu fekkee am nañ la possibilité corriger loolu ñu réintégrer ñu réintégrer ko mais mën na soulever un débat mm-hmm. de la non rétroactivité moment bi ñu ko dugal à partir de la le délai bi du mm-hmm. courir moment trois mm-hmm. na droit dafa sew <laughs> dafa bëri ay ñoo xam ni voilà dafa si yéeme léegi nag ci kaw loolu comme que débat bi am na man l'histoire de def ko ci beneen assemblée wax dëgg fa yàlla ko qu'on puisse dire nga far nga ñàkk far nga soutenir l'action du gouvernement la constitution est très claire la mm. constitution a dit devant une assemblée nationale voilà et l'assemblée nationale ce n'est pas une connotation boo xam ne dañ naan nii lañ koy waxee war nañ ko wax ce sont les députés ce sont les parlements foofu la ko war a defee donc toute autre assemblée beneen boo koy def violerait l'article 55 donc loolu moom je pense que luñ soulever la luñ wax la mais nekkul loo xam ne sax tey war nañ si mun a taxaw naa la xamal leen de bu ko gars yi corrigé wul Sonko lu mu ko waxee noonu la koy defee waaw mais sauf que bu ko defee sa déclaration serait en réalité insensée non avenue et du am benn valeur d'accord moi je pense que le plus important nañ ko le vide juridique bi nekk ci disposition yooyu nañ ko def c'est vrai que nit ñi ñu ngi soulever les questions de defoon nañ li assemblée defoon nañ li assemblée defoon nañ li assemblée c'est vrai mais c'est pas une raison fondamentale ba tax nañu war a defaat lu koy violer. d'accord parce que tamit dañuy faral di wax.

mbir yoo xam ne kenn xamul nu mu toll. merci beaucoup professeur. la ko ci wax c'est vrai ah c'est dans trois jours c'est vrai ah <laughs> merci beaucoup euh, professeur. Euh,